maa ngi kenn di ci nuyoo bi sunu gan gu tedd di sama papa di sama nijaay sama lépp ministre Aly Ngouille Ndiaye ndax département Linguère moo fi nekk dañ koy nuyu bu baax di nuyu monsieur le maire mi ma commune bi ndax maire premier adjoint di la wax ni nijaay Moustapha ñun dañoo nekkoon PDS waaye yàlla dogal na amuñu candidat monsieur le maire ñëw ca kër ga wax man ne ma dama bëgg comme amu leen candidat ngeen jàppale ma ndax commune bi jëm ci kanam te man lu jëmale commune bi kanam ci lay dox ci laay wax su ma sañoon département Linguère commune Diyali lu man di mooy jël première kon boobu ko jëmale kanam rek ci laay dox ci laay wax ba ko ñaareel Cheikh Abdou Mbacke ñëw na fi barki boom bokk ak sëñ Abo benn baay sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla ñoo bokk ndey ak baay sëñ Cheikh Awa Balla moo jur bàjjan Bali mu jur Cheikh Abdou soxna jur ko moom tam mu nekk ci APR mu ñëwee dafa bëgg ku ko jàppale ministre Aly Ngouille Ndiaye yónnee si na fi Basirou Ndiaye ndax taalibe sëriñ Touba ci ñun sëñ Touba rek lañ gëm kon ñoo bokk ak sëriñ mu ñëw fi ne dafa bëgg ko jàppale mëna jappalé war nañ leen a mën ndax ñun commune bi rek moo ñu ñor lu jëmale dëkk bi kanam tamit ndax monsieur le maire dañoo and and bu rafet ba suñ cinq ans di bëgg mat kon bok lu mu bëgg normalement war naa ko ja mëna jappalé ma fasiyene ñew nak ma maa ngi ñi ma àndal militant yi ma andal nak ay talib lañ waxu ma leen dara ña nga ne waaye jëm rek fofu leen jëm fu suñ aboo jëmit leen jëm jël nak engagement pour jappalé leen honorable damaa woo ne ma cheikh ma ne ko honorable mu ne ma xam nga lu may def sama salaire u député deux millions de francs may fay au niveau de l'Assemblée nationale man cheikh jox naa leen ko mars ba décembre ça fait mois nga réglé ci la question des étudiants moo koy def ku gëm Sénégal koy def ku bëgg a. waaye yow kon Cissé honorable député ku jar a jàppale nga Sénégal suñu amoon ñett ñu mel ne yow kon romb nañu fii dinañ la wax leen ñun dara lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo nekk jeune tàllal nañ la loxo lépp loo ñu mën a jàppalee tey bañ mën a wàcc localité bi jàppale jigéen ñi jàppale suñu moroomu jeunes yi nga def ko. di profiter ci occasion bi pour terminer il faut que ma remercier ay nit parce que jaar naa ci suñ responsable politique yëpp ñu nekk suma ay papa. ku ma ci dem dinaa ma dinaa ñëw dinaa mobiliser dinaa wax ñëpp ñu ñëw kon damay wax ni ñoom dañoo ubbil yaatal ñu te ñi ngi seen ginnaaw lépp lu ñu def dañuy ànd ak yéen parce que loolu laa gëm man damay respecté hiérarchie parce que politique képp ku ko bëgg a def ñi fi nekk dangay ngay ñëw topp seen ginnaaw ànd ak ñun ñu nag ñëwuñu ci dëkk bi pour jëlee leen fi dañuy ñëw pour ànd ak yéen dooleel leen jàppale leen ba fépp fu ngeen bëgg a egg ngeen egg fa ak honorable député Moustapha ñii di tëb luñ mas a yor ñii di tëb luñ mas a yor seen waay bu fi ñëw benn waay sama bokk taalibe léegi bu ne jébbalu na ñoo bokk sëñ Moussa Nawel liñ ko joxagun mu yor ko kaso la demoon kaso ndax dañ ko jox alali askan wi dépense junni mu jël juróomi junni

waa gars yi laaj réew mi seen jabar yi duñ génn ak seen doom yi am na ci koo xam ne doomam day xeesal waaw ku sa doom ju góor di xeesal imaam kooku de yàlla buñ ko jox sunu réew doom yi sunu doom yi di xeesal ndax góor guy xeesal moom am na leneen looy def ca wet ga dama ciy sàmm nag sama kat mais buñ ñu fontoo réew mi duñ ko juróom-ñaari at lañ jox Macky réew mi mu def ci loo xam ne ñett ñi ko jiitu woon mat ko bàyyi defuñu ko loolu ku gëmm sax gumba da ko gis lépp nag du mat yàlla mooy matal te matalul lépp man mi maa ngi bis bu ma xëyee joxe million mayee ko ak deux million am naa sama kër robine ba buy set na fi mu toll mënu aw ma ko tal sax pour defar ko mooyu leen internet bi am na gone gu dëkk ci Casamance xaalisu réew mépp moo ko sàcc ndax daa jaayi pàkk pàkki Dakar yi ab syndicat la nekkoon mës nekk chef de service sax impôt et domaine Cheikh Abdoulou ñooy ko gën a sama doom tey mu yorul làmmiñam wu rëy di fenn di tappale di nar di sos réew mépp sos na ko mais bàyyi naa ko sénégalais yi woote bi léegi ñu yekk kees yi danañ ko jéppi te du am dara dara la dul am mënoo dem di football Real de Madrid te mësoo jouer cadet junior dekk ci ak équipe bu ah nan ngay xëye sax mësu koo waaw ndax lan la ma sa yor ku mës yor dara La wu rëy ak fen di les li muy wax dara du ci deug dem ba ni am 94 milliards nooy détourné khalis bu génnul nekul ci budget ñu ne la ñëwal leeral ko assemblée nga ni wax ak assemblée bam yaag ngay quarante quelques milliards ñu top sa yow doon nga ci wut commission 12 milliards waaye xale bi ne leen ko mu toog place am waay fii moroomam nekku fii Macky Sall du mas a nekk moroomam du ko tontu ñun ñooy wax ak moom mu xam ne fii moom moomu du mas nekk président Sénégal doyuñu te ñun danoo doon dara ci Sénégal te ba ñun ñoo ko mën te bëgguñoo nekk président moom nan la ñuy jéggee malgré li nu def lépp moom mu ni day nekk président

ku man dara kay da nga mën a dimbali sa frère ba mu mën a def leneen dépensé la nekk frère naxante yi nañ ko baax Sénégal lu kilifa diine yi wax mooy dëgg Tiwaawan nee na waaw Touba nee na waaw Ndiassane nee na waaw Niassène nee na waaw Kër Baay Laay nee na waaw Chérif yi nee nañ waaw église bi nee nañ waaw waaw lu fi des ñooñu da ngeen a def ne amuñum xel ñoom bu ñu tànnee ñaanal nit jàppale ko sunu baay bu baax ba sëñ Abdou Aziz Al Amin wax lu leer Pape si waxaat ko ni ñun Tiwaawan ñëpp sunu xarit lañu mais Macky lañu àndal sëñ Muntaxa ni da koo yërëm di ko ñaanal lépp li mu man mu koy def benn màggat boo xam ne buy dox di tafar tafari tubay ji wadd ñëw ni doomi tubaabam joo xam ne deful dara lu dul lekk sunu xaalis sàcc ko muy Karim Wade fukki milliards ak ñaar la jël jet privé seexlu nit ñi di ko luwe avion ci temps yi mu nekkee ministre ñu waroon ko jàpp tëj ci kaso bi ci loolu mu sàccub xaalis it nëbb ko ñu condamné ko Macky Sall laabiram bàyyi ko bu doon mën a du ma ko ba mukk grâce du ko am day tëdd ba mu jeex bu tëddoon ba mu jeex far Farba Senghor nee na ma damaa ñëw ni ko kenn du la gracier bu dul am na si mu ne ko Farba damay woo sama papa fii bëgguma fee fanaan ah ñu génnee ko doon naa wax ak samay jigéen Waré Sarr maa ngi koy nuyu naan ko Karim mi ngeen di tudd amuleen fayda Karim mi ngi ci ay palace hôtel yu luxe difa def lu ko neex ci Qatar talu len ngeen nan Karim Karim Karim lu def def lex da ngeen ko massa a gis ci gàmmoog wala magal yaayam ci bopam Idrissa sek lay wax je l'interpelle ndax ño andone and nañu fi dugg auto dañoo teggi Touba jëm Daara Jolof kérok man maag Baara dul ñom ñoo leen kar nu ànd ak ñoom ba kër soxna mbenn darma kër sëñ abo Viviane Wade Macky eh, Ablaye Wade nee na la mais mësta taxaw Touba kooku doomam mën naa baax doomam mën naa nekk ku war a yor Sénégal koo xam ne ay casino nga xam ay palace nga xam ay hôtel yu luxe nga xam mësoo seet kenn ba jox ko loxo li fi bàyyam nekk lépp bu ñuy yàpp Sénégal yi Karim Wade duñ ko fal tey duñ ko fal suba te bu ñëwee dem ci kaso bi bu fëyu loolu mooy débat bi débat dañ koy ñemee léegi ku sàccul nag ñu ne dañ lay tëj nga sàcc ay milliards non c'est sunu xaalis ñu ne way président moo doon sa papa sa papa ni sama doom bu nekkul candidat kenn du fi voté ab Wade li mu wax amul daañu wote te jàmm rek kay xew bu bëggee génn ni day génn ci mbedd mi ñun dañ koy fekki fa mu ne jàmmarloo moom du fi génn pour la moom moom Sénégal dañ ko ko dénkoon te nangu nañu sunu dénkaan dénk nañ ko Macky Sall li muy liggéey doy nañu moom lañu àndal maa ngi leen di sant di leen gërëm baayam ci boppam bi mu demee ba jeexal daa dem Versailles tëdd fa circonstance a def Abdou Diouf war a jeexal mu ñëw def marché bala xaw ma bala ànd ak Idrissa yor Mercedes bu ñuy puus moom la yoroon bi mu taxawee entre les deux tours war a dem Tamba man di may wax lu leer la waa Touba tontooguñ ma bunt kër sëñ Modou Aminta barke Cheikh Ahmadou Bamba dañ doon puus oto mais Ablaye Wade Karim ñi ngi ci ay compte yu ay milliards ne loolu bu doon réew mu dul réew Sénégal dañ leen di jëli jëli andi leen ndax ñi ñu jàpp ne détourné nañu xaalis dañ nga amati nag fitu ñëw naan dañuy déedéet dañuy taal kees yi ab lay Wade nee naa ay nitam bu génnee dama koy séquestrer biir këram du génn man doon yor Dakar xajul ci wa PDS damay ñëw du kenn waxna ko te dama koy waxal dem na na dellu si ñi ñuy mettre en garde kep ko xamni bisu election bir dakar la wala fenen kenn nga ni da ngay yàq urne doto ko net te Ablaye Wade moom bu election yi jeexee mu tal jël avion dem je mets en garde tout le monde celui qui essaiera de perturber les élections nous trouvera sur notre chemin le chemin de la victoire est là. Le peuple attend Macky Sall pour qu'il puisse progresser. Et nous lui donnerons un second mandat avec plus de 70%. La victoire, elle est acquise. Nous allons attaquer, nous allons cogner et nous allons gagner. dama sunu xarit nga sunu mbokk nga jàmbaar nga magum juróom-ñan fukki at bum la tardeel